bismillah leen ci yàmbaa ji le tribune yéen a kaa ne wàllum drogue day ah jàppate nañ ko ci Sénégal de maar di taal dama ne la benn kilo cocaïne day lañ jàppate Ziguinchor la ilaha illallah dama ne la ca Mbuur gële waaw benn tonne laa wax ni daanaka kon ak genn wàlla laa wax lañ jàpp nag a kon def nag wàllum perquisition ba waaw daal dinañ fekk lu tolloo fukk ak ñett ci ay saaku saaku bu ne téeméer ci kilo yàmbaa la ilaha illallah la ilaha illallah te ak matériel boo xam ne kon mu bee sàq la cuisinière frigo waaw bâche ak chaise chaîne musique ak ampli nga xam ne kon pour wàllum luye la waaw dog sobli ne dama la opération boo xam ne day ngir daaneel na kon wàllum drogue bala ci diwaanu Mbuur Sadiaye Tamba ak Ziguinchor dama ne la police ba day la mu teg loxo waaw benn tonne ak genn wàll ci yamba ak benn kilo cocaïne laay laay la la ci fukki fan nag réew mi ko tijjee ne en Samba Sow day atekat bi day ay bu toppee procureur mooy Samba Sow moomee dañ koy tëjoon giiru dundam la ilaha illallah ak liggéey bu mu sañ tabañ travaux forcés waaw dama la adaan woo xam ne day genn wàll milliard di cinq cent millions yéene kaa gi ne waa ñoo lànk day waaw dama la àllarbay suba ji la danañu commencé waat kon seenu liggéey ba aha ñoom fukk ak juróom yi nga xam ne nag ginnaaw kon ba ñu leen génnee nag ca police bi nga xam ne kon foofu lañ leen dañ doon waaw nee nañu dañu continuer kon di ñaax sénégalais di sensibiliser sénégalais ci lu jëm nag ci wàllum yokk bi nga xam ne kon yokk nañ ko courant bi ni la loolee du yoon waaw looloo tax nag ba ñoo lànk waaw nee nañu dama kon danañ ko xeex ñoom nag dana leen jaral leen ci kaso bi la te ñu wàññu ko war na koo jaral sénégalais yëpp critique yéene kaa waaw ni ki suba na kon dana jàkkaarloo kon ak attaque bi dee ay avocat am ni ñoom maître Moussa Sarr waaw ña nga commencé daas ak seenu ngànnaay day ngir wàllum liberté provisoire bàyyi na ko ndiko waaw waaye fukk juróom yi nga xam ne nag maanaam ñoom lañ tegoon loxo te bàyyi leen démb day waaw dëgg la mer nañu lool waaye nag ngi sàkku ci ñoom day seen mer googe ñu daal di koy wanaas ñu daal di muñ waaw waaye nañ muñ tamit maanaam jëf yu ñaaw yi nga xam kon moom lañ loon def na ko ca police ak yooyee ak yooyu waaw nee nañ leen bu leen yàq xew mi muñ leen ngir gii mari sagna googe a génn ca kaa gi ne Aly Ngouille Ndiaye de au muy jël nag police sam bi la ñuy topp ay xale yoo xam ne kon nañuy séddale ay flyers di leen ramas waaw am na leneen lu mu def yow commissariat central bi lay waaw xeeñ bi nga xam ne kon police ba xeeñ na ko maara de daali duus yaa nga salte salte salte salte waxuma la ñoo toog ca biir waaye booy romb sax nget ga la bëgg a ray na nguy wax ci nget googee moo gën gënalul Macky Sall de la xew ca Angleterre boog sobli ne maanaam gi nga xam ne nag maanaam dañ cee xam kon suuf noo ne daal di ko yàq ca Londres waaw waa Pastef day Ousmane Sonko noo <laughs> maa la ko wax benn militant Ousmane Sonko ci boppam daal daa bàyyi ba président Macky Sall kon jël micro di wax mu ne libéré Guy Marius Sagna di yuxu ca kaw Mbaye lay wuyoo moo tax nervi yi xam ne ñoom ñoo bokk ca APR day waaw dañu koo jàpp duma ko daal di koy caxat-caxatee waa APR waaw waaye APR googe ma ngay xooteeku de ubbil Le Quotidien yéene kaay nañu diggante Moustapha Diakhaté ak APR waaw courant ba day yéegal na tension ba yàgg na parce que dama ne la mouvement wu Moustapha Diakhaté boobee bu ko neexee mu def ko waaye du doon biir APR de ee eh way Samba Abdou Mbow yamu ca bi a créé kon na candidat la ca mairie ba ca Ndar cay man ana démocratie ana démocratie tribune yéene kaay ne su doon di xool ki nga xam ne nag ci Sénégal moo gën a delloo ginnaaw démocratie waaw Macky Sall lay jël bu yàgg sax laay laay oh la laaw oo laa mais delloo jël ku ba Macky Sall waxuma la sax moom daa natul sax natul dara ñëw yeenu nata wa daw ak moom yow ko ti dara ci jëm ci wàllum démocratie laa la wax jël démocratie boobee daal di koy jaxat-jaxatee ba maara di taali Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade def nanu dara waaye yow ko ti dara yeenu kees ka daw te wàllum démocratie boobee moo doon tiitaru réew de la fierté du peuple sénégalais waaw yéeni kaa ne te gis ngeen nag lii mandargaal ko ci kaso bi te waaye nag xam nga lan moo gën a doy waar ci Macky Sall waaw troisième mandat bi nee na ne waaw du ne déet eh way Samba xam nga ñàkk a wéy ak ñàkk a respecté sa askan weesuwul lii bu dul dara sax nga respecté ñi nga xam ne kon dañoo dee ñoom Mamadou Diop ndax wàllum démocratie waaw te Macky Sall nag na jàpp ne buñ ko falee day xeex ak Abdoulaye Wade tax ak forcé bi nga xam ne kon Abdoulaye Wade na koo na ko waaye moom de départ tribune yéen kaay ne Abdou ak lu ko waay mën a waxal waaw moo tax ba parti politique yi fi de code électoral bu ñuy waxtaan ba juboo consensuel ministre de intérieur bu neutre tëddee njaaxaanaay lii lépp Abdou ko fi indi Abdoulaye Wade nag kookoo jël kubba moo dëgëral mbañ ngàcce di isoloir indi encre voté jàpp sabaaram nit ñi ba tey carte d'identité léegi dooleel média télévision yu ubbi rajo yu ubbi jël marche dugal ko constitution ndi ko bi mang sa tala kurus réew mi quotidien ne gaa ñaa ngay laaj paas ca dialogue ba dialogue de suula di xaalis la waxtaane le témoin yéene kaay ne gi nga xam ne moom la Idrissa Seck nekk ni lay waaw wàllum feem la ci communication wala wàllum génn gaam la société politique ya xooba jatara waaw nee na réew mi mooy leader de l' opposition looloy dëgg yéen a dem élection yéen a jël deuxième kon yéen a jiite opposition bi ya nga xooba jatara quinze ba léegi ni la réunion secrétariat ndaw socialiste amul l'observateur ne loi nga xam ne nag bëgg nañ ko bay dugal day kuy jaayati garab gu bon ñu attelé comme ni ñuy attelé day katuni kër sëriñ bi day sampal nañ dënd makki de nee nañ trafiquant bu njëkk mooy ki bàyyi Amadou Wuri Diallo mu ñibbi loolay dëgg direct news de gis nga wàllum jaayu garab yi bon yooyee waaw chinois yi ak indien yi day ñoo ñooy reykatu nit yu am doolay nag ñooñu li ñuy defar ci garab gu bon waaw ñaari téeméeri milliards de dollars la allahu akbar Mimi Touré fay gi waaw nee na gis nga traficu faux médicament yooyee la muy rey ëpp na te bal du takk sagar du xeeñ pharmacie yi ci boppam dañ leen a infiltré te douane baa ngi ni la mënul ci fournisseurs yi dara ba dara booloo jeex libération yi nekkaay ne tey nag ma wax leen doomu président Angola ba woon dos Santos doomam ju jigéen ji lée la petite princesse waaw Isabel dos Santos ki mën a sàcc ay waaj jëlee doomu président bi lee fiyaa papa la nag sàcc la double XL la jama mu jël énergie mu jël mine mu jël banque yi mu jël téléphone mu jël média mu jël day jaay bay jaay détail jël supermarché jël immobilier jël maanaam xale bu jigéen bi daal lépp la jël laa la wax ba ca njaayum ma sax xale bu jigéen bi jël daanaka ñeenti téeméer ci ay entreprise yoo xam ne day ci ñeent fukki réew ak benn la samp allahu akbar laa ilaha illallah consortium international des journalistes d'investigation waaw moo feeñal lii <laughs> cay Afrique neex ku falu daal jël sa doom wala sa rak nag ak loo jël sa rak rak rak rak rak rak rak rak rak pétrole bi kenn mënu koo fàtte suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere boo paree mën a tëjal Mariam Ndiaye Mesdames et messieurs, bonjour. Le SAES et le Sud-Est section enseignement supérieur, pas du tout optimiste après les mesures d'accompagnement annoncées par le ministre de l'enseignement supérieur et de l'innovation, cher Omar Anne. Omar section enseignement supérieur, déclare que le ministre devait en amont faire des consultations avant de décider sur la base des difficultés clairement identifiées et de moyens disponibles à dégager pour y faire face, de faire orienter tous les bacheliers dans les seules universités publiques. En l'espèce donc, il trouve que le ministre, cher Omar Anne, a mis la charrue avant les bœufs. Le ministre est loin d'avoir pris la pleine mesure des problèmes décision inopportune d'envoyer tous les bacheliers de 2019 dans les seules universités publiques. Le docteur Ndiémé Sow, coordonnatrice du SAES euh, e au niveau de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, reproche au ministre son refus systématique d'acter les propositions et les engagements qu'il ne formule que verbalement. Donc retenons avec nos confrères de Sud Quotidien que le SAES e et le Sud-Est affichent leur scepticisme concernant la matérialisation des mesures annoncées

les échos que Moustapha Diakhaté est libre de créer un mouvement, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera en dehors de l'APR. Donc, pour nos confrères du journal Les Échos, Abdou désigne la porte de sortie à Moustapha Diakhaté. On en sait un peu plus concernant cette dame qui avait perturbé hier la rencontre entre le chef de l'État Macky et ses militants à Londres. Nos confrères de Vox Populi nous indiquent qu'elle s'appelle Maya Kamara et est membre de a légitimant l'acte. Néanmoins, le PASTEF a aussi dénoncé qu'elle a été de ce fait violemment agressée par des nervis de la PR au même titre que d'autres compatriotes et des actes barbares que PASTEF condamne vigoureusement et apporte à ses patriotes tout son soutien. Le mutisme d'Idrissa Seck continue de soulever moult interrogations auprès de nos confrères. Aujourd'hui, dans le journal Le Témoin, nos confrères se demandent si c'est une stratégie de communication leader du premier parti de l'opposition n'a de leçons à recevoir de personne. Le mouvement Langue, après la libération de 15 de ses membres, ne lâche pas prise. On nous signale dans le journal Réumi que les membres promettent de reprendre, Réumi quotidien, que les membres promettent de reprendre ces opérations de sensibilisation auprès des ménages contre la hausse des factures d'électricité dès ce mercredi. Pour ce qui est de Guy Marius Sagnan, nos confrères du journal Critique nous indique qu'il devra encore attendre. au juge enquêteur et d'ores et déjà, Maître Moussassar et ses pairs se penchent sur la stratégie à pour sortir du bureau du doyen des juges avec une liberté provisoire pour Guy Marius Sagna. La dette que le Sénégal peine à payer est considérée par nos confrères du journal Enquête comme des boulets qui freinent notre pays. Et nos confrères de signaler que ce n'est pas seulement le régime de Macky qui s'est endetté, car les présidents Diouf et ont tous contribué à contracter et à alourdir la dette publique. Nos confrères nous signalent que le Sénégal doit toujours rembourser des emprunts dont l'essentiel s'est constitué entre Le pays n'a pas encore fini de payer pour Manantali en 2026, l'autoroute de l'avenir et Dalal en Le chef de l'État Macky veut renforcer les relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la Grande-Bretagne. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous indiquent que le président de la République a pris part au sommet Royaume-Uni-Afrique et il a réaffirmé la volonté du Sénégal de s'ouvrir à tous ses partenaires dans le cadre d'une coopération Sénégal. Il s'agit d'un kilogramme de cocaïne au niveau de Ziguinchor et d'une tonne de chanvre indien prise à Mbour. Et nos confrères du journal Tribune nous indiquent également qu'à Tamba et Thiès, d'autres saisies ont également été opérées. D'ailleurs, nos confrères du journal Tribune considèrent que désormais le Sénégal est un pays du yamba. Terminons par le sport. Le tirage au sort des qualifications du mondial sera effectué ce mardi au Caire à partir de 16 heures. Le Sénégal, nous niveau numéro 1 et évite de grosses écuries comme l'Algérie ou encore le Maroc, mais pourrait tomber sur la Côte d'Ivoire ou la Guinée. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.